Mais la politique est très malsaine. Et ça reflète notre comportement. Intérieurement, ñun Sénégalais dañoo war a xoolaat suñu bopp bëgguñu kenn. bëgguñu kenn gëmuñu kenn ku gëmñu xarap la. fo né ni diw day doxaan diw diw ki lay jël diw mais nañu waxante dëgg monsieur Sonko jëlul kenn talu ko parce que goor xool leen ñi nga xam ne ñu ngi sey nga ñi sey bu nekkee c'est vrai dites-moi seen njëkk dina leen bëgg lool mais amna na période boo xamante bu amé ci yu mu nekk du leen sax tal comme jigéen da ngeen di sonn yenn saay di ëlbati ko di sangu sangaloog di nelaw nelawlu sama biir day metti sama bopp day metti parce que munoo bañal sa jëkkër mais da ngay maar day am day am nañ waxante dëgg kon nañ bàyyi monsieur Sonko man man de man de wóolu naa ko te li ma dégg ko bu nekkee nii lay continuer <laughs> bàyyi leen ma nooyi sax parce que nit bu xam lépp wax lépp en tout cas fi nga nekk ci Casamance fi nga nekk ci Ziguinchor ñu ngi lay jaajëfal ñi nga yónni taxawal nañ la taxawaay bu am jom tey ku may seetaan xam ni tey damay bëggee tey dama tey damaa bëgg tey damaa bëgg. ndax euh, monsieur Sonko xaw ma la lay marikoon di xelal waaye bàyyi ko xel ndax dëkk bi dañoo mën dëddale ay nit ñu ànd dañoo mën a jaxase ay nit ñu ànd te kilifa doo nekk benn nopp dangay bàyyi ñaari nopp. parce que aujourd'hui Dieu te prépare ci sama yaakaar ci sama xel bu gàtt yàlla dalay waajal. monsieur Sonko xam naa ni live di nga ko dégg tey su ma am woon fu may yegg torop torop torop torop torop di bëgg gi ma bëgg maam Cheikh ma ne la sa yaay faal barki Cheikhul Khadim mais xamal ni am nga patriote bu nekk sa ginnaaw loolu laa mën a wax te sama kàddu gu ndaw yoruma fii dara loo xamante ni war naa mën a inciter wala xëcc nit ñi mais nit ñi bu ñu bokk ak yow conviction dañ lay déglu tey waxtaan gii parce que Pape Alé tout à l'heure il a tout dit Pape Alé quel homme yaay sama yaay sama yaay nen ma Pape Alé quel homme Nous ngi lay dégg Pape Alé macha allah yal na sa jàmm